patriote maa leen nuyu di leen seen frère la Cheikh Anne non discours du le président Ousmane Sonko mu ngi toj àdduna New York fii africain yi fi nekk ak africain yi ne partout ñu ngi coow le président Ousmane Sonko discours bu mu def démb fekk boobu Sénégal ñu ngi si manipulation boo xam ne bu méttee méttee méttee am na ñoo xam ne ñu ngi wax dañ leen di wax ne yéen war ngeen waa ji war ngeen ko songu de lu tax du ngeen ko attaqué am na ñoo xam ne nag man ak ñoom a yem buñ leen bindalee français dañ naan liiral ma déggee discours français dañuy ñëw jox ko ku dajeeg waa kër ñàkk jàmm nee na kii lu ñu wax ñu tekkil leen ko si noo xam ne si beneen anam anam bu bon <laughs> ndax waa ji français la doon wax bu ngeen gisee coow lu bëri français la doon wax Ousmane Sonko bu mu koy toog tontu tubaab la doon wax te réew mi nag ñi mel ni man dañ faa bari ñoo xam ne dañ naan liiral ma ak lu mu wax. moo tax bi ma seetaanee oustaz Matar Sarr dama ne non ay oustaz ku ko liiral discours bi lor na ko. <laughs> yéen le président Ousmane Sonko président Diomaye amagul benn loi bu ñu yóbbu assemblée nationale li nga xamante ni mooy loi bi nga xam mooy dàq lépp luy góor jigéen si biir Sénégal yéen joxagoo leen ko Diomaye joxagoo leen ko Ousmane Sonko ndax yóbbu demagu yóbbu demagu leen ngeen jébbal leen ko ñoom te ñoom amul fenn fu ñu waxee ne dañuy dàq loolu ndax ñoom dañ ne carrément bu ñu jëlee réew mi góor jigéen moom loi bi bu ngeen indee ñu woote ko ba léegi jóguñu si ñun ñi bokk Pastef yëpp dañuy xeex góor jigéen Pastef amul fu ñu ba jamra jamra jamra ña fa ñëpp ñi ëpp jamra jamra buñ dee cent xam naa maam Matar moom du ngeen ko génne ne ko war ngaa wax si lii parce que loolu ngeen def xëy nit ki war ngaa wax si lii mu génn wax jamra ndax jamra mamour ya fa nekk ñëpp Pastef lañ bokk dañuy xeex góor jigéen yéen Ousmane Sonko li mu wax nu mu bëree njëriñ xalaat xool aduna bi yëpp di coow li mu wax ngeen nekk si ay wala moom ba mu waxee li te yéen ba léegi amul leen lu ngeen tegal waa ji nekk leen ay nit te moytu liiral ma te moytu jël vidéo jox nit ne ko gis naa sax oustaz ak ni ma ko respecté ak ni ma ko fonkee mu jël daggiti vidéo manipulation o dugal ko <laughs> waa ji li ma naqari lan moo tax ñëw ba suñu réew naan di fi tudd waxi góor jigéen président Obama bi muy dem Sénégal di wax ak Macky Sall est-ce que dañ ko sañ na Macky na ko wax na ko bu fi wax lii amul Sonko buy dem France sañ nañ ko wax na ko bu fi wax lii gis nga àdduna dafa dépassé lii nga war a wax lii waroo ko wax si gan. gan gi nak bu waxe ba pare nga répondre ko ne ko li lañuy bañ li lañ fi nangu songu loolu la def mais bu ngeen moytuwul war ngeen a wax war nga genn wax waji war ngeen ko attaquer waji ji war leen ko may dara mais macha allah ma ma la laa bëgg wax Macky Sall rythme bu mu len bayyi rythme xex bu mo ne ci yeen ba léegi <laughs> mais kan ngeen di xexal Ousmane Sonko du massa a daganal goor jigen ci Sénégal loolu ñun duñ ko ci bayyi ñun suñu xeex mooy góor jigéen Sénégal comme li yéen li ci doon seen xex manam loi bu ñu yóbbu ko assemblée nationale ñu wote wax leen si saako engrais bi doon jar juróomi junne Sénégal waa APR ak yenn borom barke daan ko jël bu ko bu leen ko état joxoon ñu koy jaayaat baykat yi di leen sonnoon ba baykat baykat dëgg daawul jot si engrais bi ñu koy jaaye juróomi junne li saako ceeb di jar mu wàññi ko yóbbu ko si junne ak ñetti téeméer maanaam six mille cinq cent lu doon loo xam ne ñoom yóbbu woon nañ ko si vingt cinq mille ak gis ko jafe. wax leen si Touba gi nga xam ne dañoo amoon problème mu ndox président Diomaye dëkk baa ngay baawu naan ndox. wax leen si géej gi amutoon jën séeréer yëpp a ngi fiiril di lekk jën wax leen si daaray alxuraan yi nga xam arrêté nañ tëj ab oustaz wala ab sëriñ daara di leen boy boy bunduxatal si réew mi wax leen si lii nga xamante ni mooy sénégalais yi kontaan gi ñu kontaan ak koo xool rek gis kanam gi ni muy tàkkee ndax jàmm ji ñu am si réew mi li ngeen war a wax si réew mi bari na de ah ak discours bi adduna yëpp di ko coow ñu xëy rek di leen manipuler ñan ñooy def loolu ñi nga xam ne ñoom ñoom ngeen a yàgg tegal loi bi moo tax boo gisee Ababacar Mboup ma bëgg ko noonu nit ku baax a ngi noonu parce que Ababacar Mboup si xam-xam lay dem doona ko génnal wax rek mu wax wallaay laasim euh, kooku nit ku baax la Oustaz Matar Sarr ku baax nga dama lay seetaan damay seetaan sa émission mais tey moom dem nga si manipulation dëgg say communication gars yi un mois quinze jours lañ defagum wala un mois dix jours mais ndox maa ngay bawoonaan Cheikh Tidiane Dièye wax leen si li mu wax. docteur Cheikh Tidiane Dièye dëkk bi képp ku am seen dëkk am problème ndox ñëw leen sama page Facebook ngeen commentaire fa ban problème ndox ngeen am moo xam problème forage état bi saafara ndax loolu mas